wa waajaa ngi nii di Ahmad Layeen mi ci wilaya ji borom bu nu yaan ak saxaadatu la tey sa waji dama judd rek beug la taxawuma la bàyyi seigne Modou bara seigne sëñ Abdou Aziz Madiana ak Cheikh Abdou bara seigne Ahmed seigne Basku Jajang seigne sëñ magatlo seigne Lo Tawfiq seigne Moussa Finance bàyyi seigne Abdou Khadim bara bàyyi seigne Cheikh Coro